sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjekki Moustapha su fekkoon da laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha tey moo it ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ak mboolem njaboot gi topp ci ginnaaw ñëpp sëriñ bi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bis bii nga xam ne moom ak yéen ñoo ko bokk wax ji du gudd loolu waaye faaw seere ci ndax sëriñ Moustapha Fall bari ñoo dugg ci waxtaan wi rek ñu fàttaliku Cheikh Sidi Moukhtar ñaan suñ borom dolli ay leer tataasu ci barkeem ndax dëgg ni fii daaw ci ndigalam lañ màggale màggal gi ci teewaay ak fàttaliku kon bu suñ borom dogalee mu bàyyi ko fi tam des ci xel yépp faw ñu fàttaliku ko ñaan suñu borom dolli ay leeram te liggéey bi mu liggéeyee Serigne Touba suñu borom fay ko ko ndax ñëpp xaj nañ ni Serigne Mourtada wax fàttali ko ci discours Cheikh muy lu kiimaane loo xam ne dafa mel ne sëriñ bi tey la ko waxoon ñu war cee jàngat jàngat yu rëy yoo xam ne doo di sëkk lii baraan ngay wax ci turu sëriñ Abdou Lahad Kane bi nga xam ne mooy meeru dëkk bi ci cant ci dëkk bi jëmale ko ci ñi fi teewal nguur gi ci njiital professeur Mame bu Dieng bi nga xam ne moo fi teewal président Macky Sall ak kàddu yi mu wax ci dëkk bi yóbbaale na lépp li ci mujj nag mooy suñu kilifa di Cheikh Mahamadou Moustapha ibnu Cheikh Abdou Khadir nga xam ne kàddu yi mu fi wax daanaka jërtoon doon waat dara ndax wax ju leer la joxe ne ku ko dégg dégg ko ci sa biir xol ndax li sëriñ bi daa wax rek wax bu jugee ci xol dem ci xol ca xol lay àgg waaye bu jugee ci xol bu jugewu ci xol jaar ci làmb rek ci day jaar ci nopp yi jàll moom nag yàlla defal na ko tawfeex ku dégg li muy wax xam ne li muy wax gëm nga ko tamit koy dund moo tax fu mu waxee mu àgg ci xol yi di nuyu itam Serigne Moustapha mu Cheikh Sidi Moussa mi nga xam ne moo fi xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak mboolem rakkam yi fi teewal ak mboolem njabootu Serigne Touba gi teew ci jotaay bi yëpp Cheikh Mouhamadou Moustapha nag. faw ñu fàttaliku ci moom tuuti fàttaliku ci tuuti ci Serigne Touba ndax bis bii day bis boo xam ne moom moo ko woote woon di ko wooteel Serigne Touba kon waxtaane mënu leen di génn ñoom ñaar muy jëmm joo xam ne itam dafa marke histoire lool ndax yoonu murit tey bu doonoon tabax Serigne Touba moo ko ñaan ba suñ borom defal ko ko mu wax ni mu bëgg a mel leeral ko ko boppam ne ko yoor wi de noppi naa ci lépp lu ma ci war dafa def naa ko maa ngi mel ne rab bi nga xam ne dafa defar ay sërm ba mu jekk mu def ko ci barab fu na toll ak fu jamono toll rek ma génne ci wenn son kon moom Serigne Touba dafa teel a wax ak moom xamul ko lim bëgg bu doonoonu tabax nag manistaa wax ne Cheikh Mamadou Moustapha moo ko fondu woon mu nekkoon jëmm jàmbar jàmbaare sëriñ Tuuba suñ defal ko tawféex moo rakkab yu tedd yi Cheikh Mouhamadou Fadil ndax ñoom ñaar li ñuy wax al omari al omaray ni mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil sëriñ Tuuba loo de caa doon rasulullah li ñuy wax ramziyatu zamani wal makaani wala zarfu chamali wal makaan ñoom ñaar foo tudde kii sax faaw nga tudd ko jërësi ndax seen mbir dafa lëkkalu Cheikh Mouhamadou Bara ñëpp xam nañ ni mu demee moom Cheikh Mouhamadou Bachir nii ko Serigne Moustapha waxee moo doon a jëwriñam mboolem njabootu Serigne Touba gépp itam kenn ku ci ne ceeb bam la ndax li tàmbalee ci Serigne Abdoulaye jëm suuf ñëpp manista wax ne moo leen toqi moo leen yar ñëpp moo leen samp kon moom moo fond yoon liñ ci fàttali nag mooy la ci jiitu mooy bi ko sëriñ bi di dalal fii suñ ginnaaw ci kër sëriñ Souhaïbou ci Daaru Rahman moom ak Cheikh Mouhamadou Fadil ak sëriñ Mor Mbacke golo gelaw sëriñ bi da leen wax ne li ma leen ci sas de ndax lii seenub liggéey mooy alxuraan mooy nongu ngay jàng waaye gaaw a xam bi ak bañ a fàtte ko mu seen yoon niw ci kon noonu leen sëriñ bi tàmbalee tërbiyee leen jàngal leen boole leen ak rakkam yi Cheikh Ibrahima Faty Cheikh Mahodou Moustapha ak Cheikh Mahodou lépp lu ab taalibe bi def def nañu daana wax ne gor naa gayet rabb na per lépp lu ñuy def xaddina bi nekk moo Cheikh Mahodou Faty bind na Sëñ Tuubaa téeméer ñeent fukki kami te kaayit bu ci ne dañ ko daa boole ak nekk ak nit ñi mel ne taalibe ba mu nekkee ca gànnaar foofu xam ngeen ne metti woon na lool ndax condition ya fa woon waaye ci njàmbaar ga ak bëgg positif yëmut rek ci ne doomi sëriñ bi la waaye dafa futt ko laxasaa yu mel ne taalibe yi yor melo taalibe yi mbaj njañ li nga dégg ñu di ko ko tuddi sax ba turu ndoom yu bari ñu la di wooye njañ loolu ko indi ba mu mujj Sëriñ Tuubaa woo ko bu ndikk mu ne ko ana lii ci jublu mu ne ko xanaa bëgg doonu taalibe mu ne ko yow jaamu yàlla ci sunna lañ la tànn kon boobu Sëriñ Tuubaa ngi koy waajal noonu la Sëriñ ci yéen ci lu taalibe def mu di ko def loolaa waral kon moom Sëriñ Tuubaa da koo waajal bu yàgg ndax bindoon na ne Sëriñ Tuubaa bindoon na nanga def Cheikh Mouhamadou Moustapha mbindum loo xam ne teg naa ci sama def Cheikh Mouhamadou Moustapha kilifa képp kum jamono teen ci kaw suuf kon Serigne Touba wàññiwoon na bu yàgg moom ci boppam itam bi Serigne bi di bëgg ñibbi borom ñibbi si Touba booba ba mu nekkee ca ñaaxeen loolu ñëpp dégg nañ toog naa mbooloo ba caag moo ne ñokkee jug ànd ak Serigne Mor Jàndam dox ay jéego yu néew ci biir tóokóor ba ne ko li daa wax ak man de wax naa ak man te ay waxam dawul dañ nee na ma boo xasee ba am ñeent fukki at doo mati kilifa te loolu jaaxal na ma loolu boo fekkee ne sëriñ bi ak ci waajtaay kon moom sëriñ Touba da ko waajal lu yàgg bi fi sëriñ Touba ñibbisee Touba it ñépp xam nañ ak njàmbaar ndax li ëpp solo mooy jumaay Tuubaa jii nga xam ne moo jiitu woon ca naari Serigne Touba la ci Cheikh Mouhamadou Moustapha def ñëpp xam nañ ko ndax bi ko sëriñ bi wootee wax na ko ne ne joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett taalibe yëpp dajale ko ba motoon juróom million ci yooyu jamono la ca xewoon ñëpp xam nañ ko bañ mayoon sëriñ bi autorisation diir bu gàtt tubaab yi. dellu siwaat fii ci Touba dajale mboolam mépp ci kanamu Cheikh Mamadou Moustapha xotti xotti autorisation bi ngir bëgg koo gànnaaw ko ne waxi jumaa ma bëggatuma ko dégg Cheikh sépp jaaxle kenn xamul nooy def waaye suñu Moussa ca dal ga lii suñu Moustapha seere léegi mu ne tekki ba Touba bi dem mu wax ne nu may def am ku mu waxal. ba amaat autorisation bi lay xalaat mu dem ci tubaab yi wax ak ñoom tubaab yi wax ne autorisation mën nañ ko ko may xañ ko ko ni ñu koy may xañ ko ko it mooy autorisation aw kayit la waaye nag nañ ci teg condition yoo xam du ko mën a matal muy condition yi mbett lu gudd la waaye lu tuuti laa ci tënk bokk na ci condition ya dañ ko wax ne ko saxaar yi tubaab yi doon def mooy train yi yi ci ëpp seen projet àgg na ci muy Louga Linguère ak euh, ngin gineew ak xaay kon ouvrier yi ñu doon liggéeyal yóbbu nañ leen Madagascar kon li ci des mooy faw nga wut sa ouvrier bopp yoo xam ne yaa leen di tànn te daañu ma junni ak juróomi téeméer te duñ doon ay nit ñoo xam ne nit ñu yooyu la ñu doon ndax liggéeyu saxaar yomb ne ko itam fépp foo xam ne jaar na fa mbooloo mu koy liggéey lu ñu fa yàq yaa koy fay yaa koy garanti barab bu mu jaar te ñooñu anduñ ci ndax ci ay tool lay jaar la leen di indemniser yaa koy joxe. te liggéey bi itam contrat bi juróom-ñaari at lay doon bu àggu ci diggante bi mboolem loo ci defañ ci xaalis da nga koy perte ndax dañoo am yeneen liggéey Cheikh Mamadou Moustapha ca fitwa ak njàmbaar ba ndonk lépp ba mu dellusee nii ñaam ca jaaxle muy leen lii dellu yomb la ndax liggéey bii ma Sëriñ Tuubaa sant de bu fekkoon te ne damay sooli ji soldaar door ko def danaa ko def mu woote ba mu wootee ñëpp daje lii sëñ Moustapha wax Cheikh Mouhamadou Bachir xelal ko ne ko ni ngay def mooy nañ tànn ci seex si ku ne joxe nit ba junni ak juróomi téeméer mat fa sansa ki nga xam ne ak njàmbaaram ci yoon wi ko natt muy maam Cheikh Ibra Fall joxe bëgg joxe junni ak yëpp Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko gërëm naa la sant naa la ndax man nga ko te am nga yéene ji waaye liggéeyu Sëriñ Tuubaa ñëpp dañ ci am wàll waaye Cheikh Ibra fa sansa juróom-ñaar téeméer nit yi mu joxe ko suñu am sa tuloo ngaa bu joxe téeméeri nit sëñ Manumbe joxe téeméeri nit sëriñ Masamba joxe Cheikh Mamadou Moustapha mottali ko ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñu joxe leen ñu joxoon leen delem juróom-ñaari at ñu liggéey ko ci ñaari at ak genn wàll kon loola yoon wi war nañ ci fàttaliku ngir xam ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa saa su ko bëggee la Seex Ibra Faati waxoon Sëriñ Tuubaa du santaane mukk sant mukk lu ma dul def ndax koy santaane dafa woo ak def ko jëwriñ ji woo Sëriñ Masamba woo Sëriñ Masamba ak Cheikh Mahamadou Fadil wax leen neen dem leen ca carrière ba Cheikh Mahamadou ak suñu Balla Coor mu ne leen taxaw leen liggéey bi lépp lu ci war na ngeen ko def kon Serigne ba mu ko santaanee rek moo tax ñu def ci jom def ci yitte ba liggéey bi àgg fi tey kon yoon wi war nañ cee gën a jàngat ne lépp loo xam ne song nañ ko te am ca pastef ndax booba ca yooyu jamono kot waxuma la ab dërëm wala tànk waaye li ñuy wax suuf kenn mënu ko kon am kon Cheikh Mouhamadou Moustapha jàmbaar la ci yoon wi joo ne kenn warut fàtte jëfam. ñi ko Serigne Touba booleel woon itam ñëpp dañ ko nangu taxaw ko ndax Serigne Touba dafa wax ne ñi ma yaakaar suñu borom dindi na ci ñoom sawarus mbañante moo tax wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ku ne sa morom gën la mu war a moo tax bi Serigne bi ñu bisee sëriñ Mbàkke bu sëlam njëkk a wax mooy dafa wax ne da wax suñ Moodu Moustapha ne ko Moodu Moustapha taaw bu am ñeent fukki at dañu ko réer te jub tegu ci yoon kenn du ko doonoon bàyyi muy teew kon kooku la ko waroon def na ko ndax moom moom la sëriñ Tuubaa santoon ne ko na xiblaat ju wàññi maam Cheikh Ibrahima Fall taxawaayam ci Cheikh Moodu Moustapha àdduna sépp xam nañ ndax ca këru njaarim ga ba tubaab yi woote xamutuñ ku ñuy waxal ndax mënuñoo wax ak ñëpp te mënuñoo ñàkk ku ñuy waxal ku dox seen digg ak yoon wi bañ wootee sëñ Mudu Mustafaa woote ñëpp ñëw Cheikh Ibra yeex a ñëw sëñ Mudu Mustafaa yónnee woolu ko ba Cheikh Ibra accès dafa sumbi kaala gi ñëw ci Cheikh Mustafaa toog tubaab yi daal wax ne la ma doon laaj jërt laaj lépp leer na ndax Cheikh Abri mii ñu jàppoon moo war a wutu sëñ bi bu doxalee ñi kon xam ne ni sëñ bi wutu Moussa kon ñoom li leen waroon lépp def nañ ko ak Cheikh Ibrahima Fati nag moom mi nga xam ne moo doon a jëwriñu sëriñ bi fii ñu toog di béyti fi la woote wax ne képp koo xam ne rakkale ci sëriñ bi ña ca mag nañ ñëw képp koo xam ne mbokk la ci sëriñ bi ña ca mag nañ ñëw képp koo xam ne doom la ci sëriñ bi ña ca mag nañ képp koo xam ne ab taalibe la ña ca mag nañ ñëw ba ñëpp teew fii ci kër bu bayt gi ba muy ñëw ab baa baa buy dund la ñëw jox ko suñu Mor Moussa addiya ba ñépp teewee mu tàmbalee waxtaan wi ci ay rakkam maam Cheikh Anta mu ko Cheikh maag yow nañ yaakaar yàlla te doyloo Sëñ Tuubaa ndax ñun njabooru Sëñ Mbàkke Mor Anta ab dëkk waxuma ci waxuñ xajuñ ci dëkk waxuma ab ab kër waxuma ab kon nañ yaakaar nañ yaakaar yàlla te doyloo Sëñ yëpp dugg mbokk yi sëriñ Manoumbe mu ne ko Manoumbe demal liggéey bu liggéey bi sontoo nga indi ko fi nga ko daa indi koo fekk nga jox ko kon loolu itam leer mu dikk ci taalibe yi Cheikh di seen jëwriñ mu ne ko Ibra Fall waneelu yoon ndax lëndëm bu gën a metti nga amoon ko amaan na ndax ba ñëpp gëlëm ya kat yaa leen gindi ci sëriñ bi lëndëm ko gën a métti nag amaan na ndax ki daa gis ba gisatu googu lëndëm moo gën a métti kon Ibra Fall waneenu yoon Cheikh Ibra waneenu yoon ñëpp jaar mu dikk ci rakk yi Cheikh Mamadou Fadil ak rakkam mu ne ko Mouhamadou Fadil yaa ak say rakk seen magam googu topp leen ci ginnaawam ñun njabootu suñu bàkk moo doon andi sëli kër lu ñu am. topp suñ mag ñu ko may bu seen mag melut ne suñ mag nag seen mag ngeen bàyyi suñ mag ne ko ne suñ Modou Moussa Modou Moustapha say rakkam boobu nañ topp sa ginnaaw nga jiitu li am solo nag xëccooy dëkkee ki kër amul solo li am solo mooy fexe ba doy nit ñi boo doyee nit ñi foo nekk ñu fekk la fa kon ñoom taxaw nañ ko bu baax ndax loolu day histoire bu mat a fàttali bu mat a leer Cheikh Maodo Moustapha itam di jàmbaar ndax dafa wax ne bi fi sëriñ bi ñibbi Tuubaa ñaan yoon dafa def ñaari kuréel ñii ànd ak man ñii ne tekki di xool ba xam danaa bana danaa mën a demoon déet Cheikh Abdou Lahad Mbacké ko wax da ko ne nanga farlu ci liggéey te nangoo liggéey ndax bu ma gisalu sëriñ bi kat mbooloo mi dafa def ñaari xaaj ñii ànd ak man ñii ne tekk di seetaan ba xam dinaa mën a demam lépp waaye ma jël liggéey teg ko ci sama kanam ma dégg ma dugg ma ma fexe ba xitti am sàq ba ma ca saxee ab diir nag ñëpp de seetaan ñëpp mujj xam ne kii kat ku ko topp mu dem ku ko topp ma dem ñépp wër ba di ko topp sama ginnaaw mu ne nag bu tolloo lépp nag sàq yu fi sëriñ bi bàyyi fukki sàq yoo wàññi juróom-ñeent ba ko fukkeel maa ko jëf boo demee ci kaamil yi di wàññi fukki kaamil yoo wàññi ba ko fukkeel maa ko bind néegi defar naay néeg kon lu taali bi def def naa ko ba noppi sëñ bi amu kon nag lu taali bi de am war naa ko moo tax lu fi sëriñ Tuubaa teg fas naa ci te fas naa ci teg sama loxo kon ci fulla ak njàmbaar akum xel ci la ko def liggéeyu jumaa ji nag lu kiimaane di ci am ndax ni ko suñ boon defalem xel ni la ko defale baatin ndax ki ko jox liggéey bi kat du ko seetaan ndax sëriñ Bakk bi sa neewoon na ndénkaan loo xam ne ki la ko dénk xam ak i bëtam du ci jug loolu ndénkaan jafewut bi mu signé contrat ak ki ñuy wax tëlëri ñëpp dégg na histoire bi tëleer dem France nangootu dir si liggéey bi yàgg sëñ Maodo Moussa indi le contrat bi wax ak beneen tubaab tëleer porte ko pelante ba mu ko pelantee ñu di ko woo ay yoon yoon di renvoyé dossier bi lu bari ba ca mujj ba rek ñu woo ko Kaolack moo ànd ak way juru bu tedd ba sëriñ gaawan ak sëñ Modou Moustapha Fall booba nag sëñ Modou Moustapha jug na fees dell sëriñ Touba ba mu duggee ca tubaab yi woolu ko ba mu dikk dafa dugg rek summi gi sëñ Modou Moustapha Fall daal yuuxu ba mu agsee tubaab yi ne ko laa juñ la dara lu weesu dañu bëgg xam ba xam danga fayam doo fay suñ Modou saa jël loxo bi dóor ko ci taabal ji ne ko ne ko duma duma fay mukk li ma bëgg xam mooy bu fekkee nguur tubaab nguuru France damaa bëgg a daan naa ko xam tubaab bi ne kon man ngaa dem loo gis xamante ma na bi mu génnee am ku ne bu ma sañoon da nga ndax xamoo tubaab ndax tubaab baaxut te nii ñu la waxee de xamal lañ sa kaw la jëm si te gis nga fi njaare sa baay kon nag fexeel ba mastaak ñoom te jéem a fay moo gën sëñ Maodo Moussa ne ko yow de xamoo Serigne Touba te xamoo fi ma toll ne ko liggéey bii de ne ko ay daana daa tax góor dëri ñaari tànkam ci kaw suuf ba kenn du ko mën a daaneel ne ko man ak sama benn tànk bii bu moo ko dëree ci moo ko dëree ci kaw suuf bu nguuru France gépp dajale woon seen kàttan ak seen doole bu ko daane duñ ko mën bu fekkee ka ma daa far ànd naag man te sama ñaari tànk laa dër ci kaw suuf kon wóor na ma li ma bëgg dina ko suñ Modou Moussa bàyyi ko fa jóge fa rek guerre trente trente neuf quarante ak si tëlëri ñu rey ko dossier ba jeex kon foofu wan na fa xel baax fi ma koy jeexale nag mooy borom bi di sëriñ Tuubaa dafa am benn tubaab ndax alxaqu ma shahidat bihi al a'daa am noonu lim seer mooy dëgg ndax Cheikh Sahdou Abihi dafa seer dañ koo laaj ne ko kan mooy sëriñ Tuubaa mu ne jaamu yàlla la boo xam ne dafa sonn ci ñaan boromam lépp ba suñ borom faye ko lépp tubaab bii nag mi ngi tudd Sarla Martel di boroom xam-xam yi gën a màgg nguuru France ministre colonie yebal ko ci Serigne Touba mu ñëw njaarim ba mu dikkee ñaan audience commandant Serigne bi ne ko nee ko amaguma sama ndigalu boroom ba ma ñetti fan mu ñëw ba mu dikkee toog sëriñ bi ne ko mu ne sëriñ bi damaa ñëw ngir waxtaan seeg yow sëriñ bi ne ko bismillah mu ne ko dama lay laaj. ndax xam naa ne li yàlla sàkke ci nit ku ñuul yaa ci ëpp xam-xam sëriñ bi ne ko hakasa mu ne ko man itam mboolem lu yàlla sàkk ci nit ku weex maa ci am ëpp xam-xam sëriñ bi ne ko ak nit ku weex daal di tàllal jëmmam kon sëriñ ko xam boppam la mu ne ko dama lay laaj loo xam ne damaa bëgg li may tontu lépp di dëgg sëriñ bi ne ko man duma wax mukk lu du dëgg mu ne ko mboolem yonente yi laa bëgg a xam seenu lim sëriñ bi na ko fàqkadul mooy téeméer junni ak ñaar fukk ak ñeent mu ne ko yonente yi yàlla wàcc ay téere ñoom ñaata la mu ne ko sëriñ bi ne ko juróom muy lim ba àgg ci yonente yàlla Moussa tubaab bi ne ko yonente yàlla Moussa du ab yonente sëriñ bi ne ko kàcc nga inter bi interprète bi daal diddi da ñemewu ko sëriñ bi baamtu ko ne ko waxaat ko ko ñemewu ko di diital fekk sëñ Masamba mu ne ko Masamba wax ko ne ko nee ko kàcce nga sëñ Masamba wax tubaab bi daal tiit sëriñ bi ne ko fii ma toog de suñ boroom ci kattan def na ma léegi ma yonent yàlla Moussa def la it ngay xaaroona mu ne ko waaye xaaroona boo ko Moussa alagee suñu borom teg na ko ci ay daan ndax yedd na ko ci mu ne ko man suñu borom fàddul na ma ay daan sëriñ bi na ko Masamba li gën a gàtt ñëwal làqu ci sama ginnaaw léegi nga weddiwaat ko léegi suñ borom mëdd la ci kaw suuf tubaab bi daal daw loolu tubaab bee ko bind ci archive kon sëriñ Tuubaa li ko suñ borom defal mosu ko defal kenn kon yàlla na ñu tàbbal ci àdd xaltu nafsi wa jamii ahli fii jëy bi afdali wala bil bil fadli te waxoon na ne mboolem ku ma yaakaar rek tabbi nga ci sama demir mutakala bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw la yaawat ña daawoote ña daawaate Mustafa